السلام عليكم ورحمة الله بكي نيغ لين نيغ دي لين زيار لين بالو حق نيان برومي سبحانه وتعالى بولين جيغا حديث بيتاي بي دفاي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة رواه أبو سعيد الخدري yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bi ku am ñetti doom yu jigéen wala ñetti sœur yu jigéen wala ñaari doom yu jigéen wala ñaari sœur yu jigéen rakk yu jigéen wala mag yu jigéen mu rafetal nekk gi nekk ak ñoom te ragal yàlla ci seen diggante nee na kooku yàlla dina ko dugal aljanna xadis bi abu saidin alxudri moo ko nettali wala moo ko solo waaw li muy ñu jàngal rek mooy njaboot wu jigéen dafa am yar bu sharia jàngale ñi di ko yar njaboot gu jigéen toujours jullit yi war nañ xam loolu te di bàyyi mesure yooyu xel boo leen amee nga teg leen fi sharia santaane pour ñu teg leen fa moo xam rakk yu jigéen la wala doom yu jigéen wala mag yu jigéen ñi sàmm sàmm seen awra sàmm seen yaram yar leen ci dignité yar leen ci euh, sharia ak sunna li nga xam ni moom la yéen moom borom subhanahu wa taala sant jigéen pour mu doxale ko entre moom ak góor diggante góor ak jigéen sàmm leen ci limites yi yëpp ba ñi ba ñi di ko dund nee na kooku bu deewee aljanna la jëm parce que amul lu ko gën a jafe sa yar njaboot gu jigéen ci diine ñu dundu yar leen ci diine ñu di ko dundu lu jafe la jagle yàlla it mu ngi ci même bu ñu ko amul sax dafa war jullit bi mu def digganteem ak boroomam kéem kàttanam loolu nag bu ko bëggee réussir ba ca jiitu mooy day fexe ba mu nekkee xale mu tàmbali ci moom loolu mu tàmm julli mu tàmm muur yaramam bi sollu jot bañ a sol luy tafu ci yaramam tàmm di sàmm boppam du feeñ yooyu bu màggaleeg moom pour nga am ko ci moom dafa yomb bu ko defee kooku lépp loo bëgg ci moom ëllëg dina yomb ci moom mais boo bàyyee ba mu dëgër mën na lu baari jafe ci moom waaye lépp nag buñ ko yar def ko ci nànk nag waaye tamit yar ko ci teggin yi nga xamante ni jullit bu jigéen daf ko war a làmboo mooy am kersa bañ a dëgër bët bañ di wax ci kaw bañ di yëkkati di wax di yëkkati kàddoom di yuuxu yooyu yëpp ci dafa bokk ci ñàkk teggin jigéen bu mel noonu jigéen ju ñàkk teggin lañ ko jàppe ci lislaam mooy wax muy wax nànk di wax wax bu dal doon nit ku teey di dox nànk bañ di karas karas yi di eh, yëkkati ay dàllam nit ñi di ko dégg kàddoom bañ di jóg yaramam bañ ji feeñ hakada yooyu yëpp muy bu ko jullit tàmmee bu jigéen kooko lolo dafa doon loo xamante ni kii ko def ci moom kooku dee moo ko tere dugg aljanna yonent bi wax sallallahu alayhi يعني يلا دول يدم بلي تسمعني سني إيمان بجاه مصطفى صبي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته